bienvenue sur ci barkeb sayxi fàddilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw bismil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu mi buur ay maqaama yàllaaw bismil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu mi buur ay maqaama yàlla auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala sayidina muhammad nabil ummi wala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallama taslima auzu billahi bismillahi inna waliyallah salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokku téléspectateurs yi nga xam ne yéen a baaxoo suivre seen chaîne bi nga xamante ni mooy Salam Vision mbégte la ñu am tey li koy sabab itam mooy fi ñu ñëw tey su fekk si suñu jigéen suñu mbokkum taalibe waaye itam kenn koo xamante ni kenn la ci ñun ndax liggéey moo ñu boole woon ay at yu baree bare boobaak tey jii mi ngi bëgg am daanaka fukki at ak juróom ñoo gën ko xam ci saltige soxna Mariama Thiaw wax dëgg yàlla waaye ñu bëri di ko dàkkantelee soxna Adam Thiaw moom lañ seet si bëgg a waxtaanee waat ak moom lenn ci xam-xam jëm ci li nga xamante ni mooy wàllu cosaanu séeréer ndax nee naa leen li nga xamante ni mooy seen jotaay bi nga xamante ni mooy faj sa jàngoro lépp loo xam ne aju na jëm ci xam ci gëstu rek dinañ leen ko dëgtal indil leen ko jagleel leen ko ba tax na tey ñu ñëw seet si ko fii bëgg a waxtaane waat ak moom leen rek ci li nga xamante ni moom dono la cosaan la waaye aada lay tamit ci moom te bëri na te ñoo xam ne fi mu ne wax dëgg yàlla yitte woon nañ ko kon li ñuy def nuyoo moom siyaar ko bàyyi ko mu nuyoo ak askanu Sénégal wërngal këpp rawatina àdduna nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan à les réseaux sociaux soxna Aram Thiaw ngi lay nuyu di la ziar waaye di la daal ci biir Eh, maa ngi leen eh, di nuyoo di la delloo nuyu di la delloo njukkal. macha allah ci taxawaay bi nga taxaw. Mhm. macha allah yàlla fi nga àndal. xale yi ci nekk. ñu mhm. ngi fi teew yëpp. bu mhm. neex yàlla mu boolewaat ñu ci jàmm ak salaam. wallaay ndeysaan te bu ñuy ñaan rek euh, gudd fan bu ànd ak euh, euh, maanaam wér. Mhm. surtout saawaan baawaan yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def. allahumma yàlla defee dañu gisawaat ci jàmm ak salaam. te yàlla moo ko noonu rek mu am. wallaay macha allah gise bu doon gise bu neex nag. gise bu rafet. Eh, Talla li ma fekk si nii macha allah dama si kontaan bi sawar fi ndax tamit ki li nga mën mhm. muy sa sa deret mhm. nit bu ñëwee tey ba di la ko laaj mhm. ma eh, wax dëgg yàlla li nga xam ne ci nga ci nga mu yàgg te it eh, macha allah yàlla boole nañu xam nga lan la bu ma war a jaxal doomu adama ki nga gis léegi te xam nga kon bu lay laaj xam lu mu dem waaye ki nga xam ne macha allah dalaa xam danaa xam ne bari. Mhm. macha allah kooku it euh, ci kattanu yàlla. Mhm. incha allah bu ko defee. Mhm. mun naa wax. macha allah samay cosaan. cosaan dafa neex. dëgg la ci kaw boo ko respecté ndax am na ñoo xam ne bëgguñu cosaan. waaye ba tey di la ziar ci loolu. fi ngeen ma fekk fi nga xam ne mooy euh, Grand Yoff. Euh, ci ginnaaw police ginnaaw yooyu bi nga xam ne santar baa ngi fii mhm. fii la ñuy sanatee fii la ñuy mhm. te afaatoo doon loo xamante ni deret la ma mhm. juddoo ci maanaam deret sant <laughs> il faut nga taxaw ci bu baax bu desee a yi ñu ne euh, mu ngi fi di faj lu bari macha allah

cosaan la donn la aada la waaye ñu bëggoon xam itam cosaan bi cosaanu fan la ci biir séeréer ndax séeréer dégg naa tam dafa bari ay pàcc pàcc yoo xamante ni bëggoon nañu xam itam ban ban ban ban ban ci ban cosaan nga bokk ci biir séeréer yi. waaw bisimilah sama cosaan euh, Sine Talla. Mhm. man maa ngi bokk euh, cosaan Sine Saloum. bi nga xam ne fële sax kii di di faxe ko. fële sax kii cosaanoo. Mhm. nga xam ne macha boo nee Sine Saloum. Mhm. Euh, nel leneen fi nga xam ne mooy Bikol. Bikol nga xam ne macha allah xale bu ndaw sax bu tuddee suuf jox la. yàlla antu. Hmm. yàlla nangu. Hmm. Euh, yaakaar naa lu mu la nee def ko rek. Hmm. boo ko defee incha allah dina baax man comme yàlla dafa am lu ma teg lu bari. ma jël yéen yëpp laax ko fee. ndaxte man dama juddoo ci wàllu mbokk. sama papa moo nekkoon euh, maanaam sant ki sin saalum boo xam ne maanaam ci lu mu la fekk ci jafe-jafe. da koy tëj. kooku moo doonoon soldat boo xam ne benn góor la woon ci yaayam. bore ba bàyyi bore boobu sonal nañu waa Sénégal ak lu wërngal képp waa Sine mhm. exemple bu guddi daan daan nañu Sénégal yëpp. day mhm. jékki-jékki am benn jëlee boo xam ne boobu cosaan am na mu nekk. Mhm. fii ngay yëg nii tey. suba fii laa lay xaar. waaye su ma la xaaree bi dinaa seet ndax yaa moom réew mi yaa moom wala moom moo waaye boo ma fekkee suba. dinañ bëri maa ngi. ko ba heure bi suba. daay daay daay daal dëkk bu ñuy wax ñaaxar. ñaaxar jël fa drapeau ci guddi bi. boobu laa bëgg di mu am. mu bu tëbee kii bi ñëw fekk jilim di xaaju guddi ñu mu àndal di naan fu mu jàll mhm. ñëw na ba bërëb jilim bi ñu tey ko jine tàkk la xam sama ba léegi xam ne kay lañ doon ñu koy wër cosaan mhm. ñu dem ba macha allah nawet ba nawet ba taxaw mhm. bu nawet ba taxawee bu nawet la ndax ñu ngi bëgg a jiw ba ñu ndënd yi ndënd euh, cosaan yooyu nga xam dañ dañ koy muur ñu saltige jël si ko waaw doo ko xam ne bu solee armée bi nga xam ne lépp dëgg la. <laughs> dafa njool ci kaw. cee. ah maanaam doon dafa doon naan góor warul sax di fecc ba ñàppaar. nee na boo fekkee ba ñàppaar ñàpp na ko. cee góor day war a doon góor. Mm-hmm. góor waroo dina la wër di dem. déedéet kooku dama doon gis samay mag yi ñu leen di ñu leen di jóor fayal. Mm-hmm. pour ñu doon jóg dem tool. waaw bu ko doon góor bu yaafus. ndeysaan. am àdduna yëpp. Mm-hmm. jàppale doomu aadama la. boo gisoon ñaar ñu bëggante. te mu wóor na woon ne kii bu élegee macha allah yàlla mun na dem mu ngi ko yor. te mu doon mbokkam. maanaam daf lay woo woo ko ba mu ñëw dama gis ngeen di kii bi te dafa am loo xam caaxaan moo kii. ndeysaan. la nga bëgg. nga ne waaw mu laaj la ko ba ñetti fan. Mhm. ñetti fan mu génn ci posam takk. takkal kooku mooy biraay bi. mag ñi kenn du ñëw jàmmalaay bi nag. Mhm. di doon lay waxtaan lay isa laay. Seydina allah macha mhm. ah, papa ak euh, papa Ablaye Thiaw laay isa laay. seen bàyyi bokk benn baay. allahu akbar. kii lay juddoo. bi paa bi gaañoo ci la ñu jógee si jamalaay. Mhm. ñibbi ñibbi Bikol. ñibbi Bikol. bu ñu ñibbee Bikol macha allah nekk fa nekk fa nekk fa nekk fa ba yàlla suñu borom def ci ginnaawam doon doon fanaan. incha allah dañu yor kii ba guddi. mu ne ma jógal. Mhm. Mhm. ma dem ñu dem ci àll bi ñu doon. mu daal di génne fekk na. fu ne mu dóor fa nit. c'est. mu ne waaw parce que lii lan la mu ne xam moom bu élégué borom kër yi yëpp lay yor ñuy taj kii ci épreuve ci kóoba ci dënn. mu ne la xam nga lan leen bëgg. xale yi ñoo des si réew mhm. a ngi. waaye bàyyi leen xale yi da ngeen bàyyi dëkk bi ngeen yëgal. Mhm. teew bàyyi li ak lii moom amuloon nii nii nii da ngay bi rek. Mhm. nag euh, taala ma juddoo ci dërëb boobu. ndeysaan na bu sans bopp. dimbali kaamil na. bu ma duggee ci biir géej bi mun a ma munoo dem ma ne ko dafay dem de. wallay ndeysaan. yow nga takkoo ma dem. takkoo ma dem. wallay. te doo ma sangat nag. cee ma papa bi ma ko teewoon maa ko teewoon ci ay doom. allahu am na ay góor waaye am sama benn mag bu góor bu doon doy. Mhm. caaxaane doy mhm. mu évancé ko. Mhm. mu ne ko doomal doomal dëgg waaye Pampkal baa nii te mooy doon sant bi te. bu mu demee ba yàlla suñu borom def muy génn àdduna euh, ci guddi googu ci liñ ma nekkal ndax te kew ma ko. mais bu nax sama yaay ne ko génnal. génnal xaw ma génn li ma ne te boobu toog nag sama yaay ne man de fan yii alam sama xel nekk na si moom maa ngi Dakar boobu yaa ngi Dakar. waaw boobu la gëj a day waaj a waaye naa ko ay boobu 14 ci weer kii boobu. Mhm. ma ma toog ba mu yàgg mu yónnee ma ma daal di ñëw mu ne ma kaa mhm. ñu dugg ci léegi saral yi. mu dagg sama côté bi mu ne dama xam ne ci kanam bi nga bari coow bi ma ko fekkee affaire baa ngi nii. <laughs> ma takk gàllankoor. ndeysaan ak sa xol ak. wallaay li ñu jàpp rek laa am. Mhm. mu ne ba mos a takk daal gàllaaj te ku la def la metti bi wëttal ndoxi safara sax waaye buntu mos a mere kenn ñu nekk ci loolu mu ma xam ne yëpp mhm. woon ma lii ak lii ak lii ak lii mhm. ba mu génn ba muy dew ba mu génne àdduna ñu ki te am na ku mu waxoon boobu benn xartal Mhm. Euh, moom a a a mën a doon. ndax am na fit. Mhm. dafa bu rafet. macha allah te lii yàlla ñoo ci jàppale. sa mhm. xol rafet. waaye koy defee doole. jërëjëf jërëjëf ndax aram xam naa ne samay doom yëpp bu meloon moom ma ko am moom kese. ma dem ndax xol bi laa. ndeysaan te mun na la muy def di ko def di ko def di ko def ba ku ñëwoon ci kër ga. man maa dugg ci néeg faral di faj ko. Oh. waaye bëgguma ci dara. parce boobu maa ci biir géej di boole. di mhm. fecc dëgg yi. Mhm. booba booba moo la neex dëgg-dëgg. booba bëgg woon ci bagage bi dara. waaye boobu mëntoon ñàkk fi mu dugal la ci biir yëf ndax xam na ni faaw mu dem te buy dem faaw mu bàyyee ko kenn. merci beaucoup. Mhm. loolu moo waraloon lii bari ba guddi gars yi di ma kii nii comme affaire soose yooyu ñuy kii nii. ba ñu yëgal na ci garab boo xam ci biir ndox ndox bi la nekk. biir géej. garab bi ay leket ak ay pétale. gis nga ci garab bi. suuf la am te mu ngi ci digg géej. waaw ma daal di boobu doom bu góor dindi doom bi teg ko ci suuf yëg ci garab bi ci guddi gi. waaw fekk fa lekkat yi ak kii bagage boo yëngalee rek. ñëwal te benn loxo tëju. ci ëllëg sama wax ko ko mu rëy. <laughs> tey xam-xam mooy yi. wallaay ndeysaan. ba mu nit ba am 15 ans. te pétaw yaa ngi nii bëgguma ci dara. ndeysaan damay toog ay fan sax ni damay bàyyi pétaw yi. dañuy jékki-jékki pétaw yi bu ko génnee nii. dañ mën a ñëw nit bi tel ak ay xale yu kat moo tax xale rek mooy samay. Mm-hmm, mm-hmm, xam naa ci dara. bon nag jaww ji ñi nga xam ne macha allah dangay toog. Mm-hmm. waral li jant na baa nga jaar fu ne. macha allah doo gis la boromam day mun de. nit war a wax ne man rek day rafet dem ba alaafee mu futi. mu na de. bu ko defee nag macha allah bagage yi nga xam ne moom ci moom laa juddoo yaroo ci. li may jàngaan ci sëriñ. waa ma dem ci sëriñ yi jox ma sunguf yi ma defaat. déedéet man damay toog nii mhm. jaakaaroo yow sax ci kattanu yàlla yàlla ma yàlla baal mhm. statir laa mhm. ma xam ne la ci yow nga xam bati man loolu yàlla may na ko waaye du li may wax man bari ma wax si man foofu man aram foofu laa doon bëgg ñëw parce que xam naa ne mooy li ngay wax rek pétaw yi xëy na sañ bañ la moo tax génnewoo ko ci biir daara ji waaye man xam naa soxna ma Mariama Thiaw xam naa man nga toog naa fekkee naa kenn nettaliwu ma te nag wama shayib naa ilaa bi ma alim nit booy wax ci moom na nga wax ci moom la nga xam man toog naa fekkee naa samay fekkee moom moo tax may seede li ma am nit ñëw taxaw nga di ko wax di ko wax di ko wax di ko wax ba mu la ne xanaa yow dañ laa nettali sama juddu man fekkee naa kenn nettaliwu ma loolu kon mu fekk mu fekk si ci li nga xam ne moom yaa ngi koy wax xëy na mu doon dono boo xam ne cosaan boo xam ne tam sañu ko génne ndax kenn ku ne xam ne ne cosaan moom du ay caaxaan eh, beneen boo xam ne daf ma bokk tam ci li ma jaaxal mboolem yi ngay def yëpp lu waay mën a wax nga ne ko bu neexee yàlla te xam naa ci yow tamit waxtu julli du la raw ndax léegi bi ñuy bëgg a tàmbale émission bi nee nga ma xoolal ma fu waxtu yu doon ndax bu waxtu bi jëlee jotee du ma ko faat lan mooy dëgg dëgëre boobu noonu lan moo ko waral. waaw sëñ Talla macha allah ragal yàlla rek. ndax lii may defal doomi aadama ñëw na indi xaalisam. Hmm. ñu koy sagal di ko defaral. Mm-hmm. est-ce que kooku maanaam xaalis bi fu mu ko ñaqee. Mm-hmm. war mun na ko lijjante. Mm-hmm. sonn ci. ñëw jox ñu ko. ñu defaral ko ay sagal bu gis. taala te bàmmeel dafa xat. amul buntu amul palanteer. lan mooy palanteer yi bàmmeel ak buntu. macha allah xanaa si jëfu rafet. Euh, nit ki sax mën nga di def lu bon di ko kii bi jékki-jékki yàlla bu la bëggee da lay retourné. da lay retourné man taal dama doon ànd ak samay xar doon ànd ci làmb mm-hmm. man dama amoon sama écrit bopp gis nga <laughs> sama écrit bopp laa amoon mm-hmm. mm-hmm. na ci jàmm ak salaam la euh, buñ ne woon Mariama Thiaw mu ngi ci bunt bi doomu aadama mu gis ko mu am ci mbég jàppale dëgg loo mënul bari. damaa mm-hmm. mu ne dañoo bari de. lool barke Seexul Xadim te billaahi wallaahi alaaxira na nit. ndax nit laaj dañu bari te lu mu lay laaj. Mm-hmm. day dem wuti sungu marché mbaa péta marché. Mm-hmm. ñëw jox la. dégg mbaa mu ñëw ci mbaa mu ñëw ci soxna Mariama ne ko dama am client boo xam ne dama ko war a. maa ngi li tax ma wax ko moo tax li tax ma wax ko man xam naa damaa fekkee damaa fekkee waaw ku encaissé xaalisu jàmbur ñëw ci yow ne la damaa am ki client nangam damaa bëggoon nga jox ma ay càngat nga ni ko lii ngay def loo ci jublu duma la nenal du ma la gàntal ndax ki la jox xaalisam te li nga koy jox dafay baax man loolu fekkee naa te du benn du ñaar du ñett li ma wax itam lu ma xam la waaw moo tax euh, sëñ Talla li nga def ni man mënuma laa fayee. parce mhm. nekk nit koo xam ne boo nee ñuus ñuus la. Mhm. boo wanee ginnaaw wane nga ginnaaw. waaw loolu noonu moom sunu. tey da <laughs> mhm. bu defee li ko war a parce que la. wallaahi la. te ci bàyyam na ko jëlee ak xëytam. nekkul ay maam de. ci bàyyi. jur jox la ko. guddi mu yee la ni la ay reen bi mhm. lii lay faj mhm. sumb bi lii lay faj et mhm. tel nga mën a dem ci garab bi joxe fa ñaan maanaam garab bi jox la maanaam li nga xam ne mooy motuwaay dama laa yàgg dégg loo waaye mën na ñëw nga di ko ko defaral boo xee nga ne ko bés sàngam ngay ñëw ndax man samay bagage du jóge Ndakaaru dëkk ba lay jóge dëgg la man li ngay gis nii bagage yi bagage yi ngay gis nii lii parce que bëggu woon na laal. Eh, waaye di laal lépp tey xam nga lii taal la macha allah. Mhm. ku la ko ku la ko kii sax war ngaa xam ne muy faj. Mhm. lii moom lay sant kii di sant ñi xëcc ci nguur gi. Mhm. wax baax xamante ne bu baax. waaye du li may tudd. ñoom xam nañu bikol xam nañu soobee xam nañu sant kii. ndeysaan. ñun sant kii nag ñoo jógee Sine Saalum ñëw fii ci santat bi fii ci ginnaaw euh, police gannaaw bi. di jàppale gaa yi. ndax dañu dañu fi indi woon ndax coow bi dafa bari woon. Mhm. ñu ñëw ñaan nag coow bi feeñ. bon nag gars yaa ngi ñëw di gis seen bopp. Mhm. te waa bitim réew yi ñu ngi woote di gis seen bopp. Mhm. ndax ñun ku ñu jàppan jàppante. ba nga ñëw bu ñuy seetale ba ñuy dugale ci sa maanaam ci sangati. te duñ la sang benn yoon dañ lay ci lëkkal tojale sa liggéey ba bari. tojale cet. doog laa dugal li nga xam ne mooy ubbeeku kaay. kon nit moom fi ne boo ko bëggee dimbali dëgg-dëgg faaw nga raxas li ci yaramam ba mu set ba noppi fi ne door ko door ko door door ko door cee defaat dara. loolu mooy du waaye fi ñu nekk nii jaww. ndeysaan. Euh, macha allah. Ah. liñ euh, fi nekkee tiituñu. Mhm. parce que nit ki bu fekkee yow yaa nekk ci dara. di mhm. tiit mhm. ñoroo ca. de da koy jàng. naa laaj kaala. ba ma laaj kee ba ma kii ba ma laaj kii. déedéet waaye li nga xam ne judduwaale la mu wóor la ne. li nga liggéey laxas yi. sama bu caaxaan joxoon ba dëgg jeex ba nawet di ñëw. mu woote 3 heures du matin. ba ne bu ñuy wootee presque téeméeri téeméeri euh, dëkk yoo fay laaj ci ay saret ak affaire bi ñu la toog. jour boobu bu fekkee gan dafa jóge Dakar. mbaa mhm. gan jóge ñaaxal mbaa jaaree bu ko dugg si. di ko mhm. dañuy naan gan a ngi dugg si dafa xëy na heure yii la ñuy commencé dàq gan yi. kenn du fa dugg. ñun suñu sosaan kenn ko génn. c'est. waaye bu ko defee ba xaaju bi trois heures ba ba métti armé wu. Hmm. nga xam lépp dëgg la. d'accord toj naa fa ren toj naa fa ren jii. <laughs> ren jii nii ren jii toj naa ko. Adam yow fekk ne boo delluwaat dañ ko war a yëg. ànd ak yow la ponkali taxaw wax baaxul mu <laughs> sàcc kii bi. na dem te boobu dañuy wut ndox xam nga nit ñi dafa soxla. Mhm. bu nawet demee bitti. Mhm. ndox bi ne teg. Mhm. dañuy jël nag li nga xam ne mooy armée cosaan. ndax cosaan kenn du ko bàyyi. déedéet. ñuy romb sama armée li Pape. ndeysaan. romb ko ñetti fan. dem ci yeneen dëkk yi di ñaan ay ndox. solu seen armée. am benn part ne leen bu leen soxal. gaynde bi ngeen di romb. laaj bu ngeen taxawee ci bàmmeel ndox dina ko. barki sëñ Tuubaa. waaye bu ñu demee ñàkk ngeen. demaat ci yeneen yenn ba ngoon jot def seen armée dara wàccu. Mhm. ci LSA ci la ñu jël dañoo war waraat rek ndox ba tam ren gii ma ñëw ci xaajit guddi ci 3 heures du matin ne leen 3 heures mhm. la ndox bi daw ku am loo jóg jiwal. la ilaha illallah. ajjuma ndox ba daa taw a taw a taw a te Sénégal yëpp ñëpp xëy bamb suñu kër daal di ñëw ma am dañu dëkk boo xam ne dama dem foofu lu wër. Mhm. ndax xale laa sama papa daf leen ni ndax ngir bàyyi naa fi kontaan. Mm-hmm. waaye nag dafa yar boppam. ndeysaan du nangu du nangu ma ba bi nekk sa dis. Mm-hmm. waaye lu ko bëgg a def ma sempal. Mm-hmm. waaye bu caaxaan jeexee ba dañuy jeex bu guddi bu guddi la jëlee. su ma neexee mu ne taral. te bu gaa yi gaa yi di mbokkante. dafa cende man la man la. man du man de yàlla laa yaakaar. lillaahi wallaahi. te li may jëflante doomi aadama. maa ngi ci sant yàlla mhm. mhm. dañ koy faj. soccet. Mhm. buy naaj. mbaa buy buy génn. taala dañ koy fas. maanaam émori. kii euh, nu mu tudd ndoxum siti xam nga nu muy def doomu adama yàlla rek moo ndoxum siti kay. ndoxum siti mooy ba nga yaakaar day dox. waaw baax di tàngal yaram. jàpp mu ne ni góor. ndoxum siti bu yàqee mu ne ni góor maanaam nga am doom. gu am doom day jafe moom. te yaram day tàng bayre ubbeeku bayre moom xam naa ko ci yow bayre laa bëggoon ne mujjee suñuy bagage maa ngi yor ndax bayre moom ba nga ma defalee bayre xam na gis naa man man kenn nettaliw ma maa gis man. <laughs> te loola te loola mi ngi fukki at ara. <laughs> mi ngi fukki at. Mhm. moom kay bala maa génn fi moom faaw nu am nun defaat faaw ma dugg ci biir njaq yooyu moom ñu ñu am nun ma def. dégg nga xam nga ni. Mhm. séeréer bu njëkk. Mhm. dañ ko doon kii ba pare. Mhm. ko dee fan. nga jël ko di mooy génnee diw ñor. bu paree nga sotti ko fenn nga jël diw ñor bi daal di jaune soo pire day xaw a jaune am diw ñor nii. soow bu rafet bu ko defee nag macha allah bu ko sottee boo toolee ci buntu kër gi xam ne kër gi am na ni soow soow piir xet bi mooy def bi mooy génn cee ci lu ñu xam ne mhm. sa mhm. li may nii ci ragaluma ci dëgg te fii ma ñëw nii pour ñu jàppale gars yi macha allah ci santar bi nga xam ne mu ci ginaaw police yi ginnaaw yow fii 77 812 23 56. 77 mooy numéro boo xam ne ku la mës a xam numéro boobu la la mës a xam. parce que aw ma mooy daw nii ci suufu écran bi sax nag incha allah. rabbi parce nit ki. Mhm. mun na laa soxla. dafa mhm. sensé numéro ndeysaan. Mhm. am itte ci yow wallaay ndeysaan. di la war. dama assuré sama yëpp. dëgg moo tax su ma neexoon am naa ay yeneen yi ma jox portable. bu ma sensé nag du ma ko soxla. dëgg la de nit ki may soxla moom. Saara li may def nii dama ci sabar ak ni ma fekk seen i. macha mhm. allah Sénégal ak Ndeo Ndeo képp. ndeysaan xam <laughs> ba noppi soxna Mariama dina li ci garaaw mooy yëf yi. bi nga donnee cosaan bi ba noppi dafa am baatin bu ci laxasu ndax nee nga sa waajur fii ci Cambérène ci Yoff laa ci waa kër kër Seydina Limamou fii la fii la fii la fii fii cosaan dafa am cosaan bu bu fi bàyyi mu mel ni kon da nga da nga yor donn donn boo xamante ni donn cosaan la waaye amaat donn boo xam ne donn baatin la ndax kenn ku ne xam ne ni sunu maam ju baax yi nga xam ne moo tëdd fii ci yoo wax dëgg yàlla moo randal géej def ay kéemtaan yoo xamante ni fi mu toll nii ci jamono kenn kenn dootu ko naatable kon day mel ni dafa boole ñaar nga daal di boole ñetteel bi daal di ñëw indi tur bi turu Mariama ñu xam lu mu wund xam lu mu tekki Mariama bi euh, Talla yàlla ma yàlla baal astafirlah mm-hmm. parce que démb rek laa jàkkaarloo moom ci koñ bii mais fi maa ngi ci doon réponse. d'accord waaw. dama tëdd ba guddi barki démb. Mariama. nekk mm-hmm. ci guy suuf yu mag yi yëpp nekk ci guy mel ni ku bëgg a génn. Mm-hmm. yaay Essa. Mm-hmm. mun naa ne nii bopp bi nii fi ma taxaw nii man lay def nii bopp ma def nii ma ne waaw ki di yaayu Essa ki di yaayu Essa Mariama bu sell. sama xarit may fóotal xam ni keroog sax wax naa ko. ma ne waa Ami yaay Essa mu ne man gis naa ko de dama waxul rek ah mu ne yow dara de yow nitu wala nga de tey jii ci gént bi de. borom def nag macha allah am lu ma wane. Mhm. ma sant yàlla loolu parce que dañu tànnee dund ba dee. Mhm. seen sax li nga xam ne mooy yore bi seen yoon. sa Ahmadou Bamba bu may feeñu. Mhm. ci àll la ma feeñu. ci néegi ñax. Dakar bi garab yi Dakar taxawee nii garab yi euh, kii buy taxawee nii. ma ñëw ba ci àll bi ci gént bi ñëw ba mu koo def nii bët yi mu ñëwoo ma mu ne ah kii de borom Touba. ma daal di woon ñëw c'est Ahmadou Bamba. waaye Talla damay sant yàlla lii nga nga xam ne da ma fay gis ci sama cosaan. lépp la faj na. Mm-hmm. ñu ngi fii ci ginnaaw président yow. wuyu soxna numéro bii. Hmm. boo ko woo boo ñu woo ñu xaaju guddi sax. ñu wuyu la dama lay dama lay dañ lay jël si. Hmm. seetal te fii la ñuy sangati. Hmm. bu dee góor ñeenti yoon lañ koy defal ay sang. bu dee jigéen. ñetti yoon la. jigéen bu taxaw góor bu tene. même ngay dem yenn yi ba sa bët di métti ba sa bët di métti ba sa bët di riir. tension day ànd ak saytaan. tension. tension ak diabète bi saytaan moo ci la ñun xam nañ ko. dañoo bàyyi ci biir. ñun fu ñu nekk dem yëpp saytaan yëpp dañu ran. ndax fu ñu nekk yi ginnaaw yàlla dañuy léegi mhm. man de man léemoo ci kurus jànguma alxuraan waaye lu bari yàlla dama koy won te ma bàyyi ci biir que mhm. er! mhm. Seexul Xadiim may gis ak li ma xam ko borom te man dama ci am yéene pour jàngal ci da kii taal li ma xam nit jàng na alxuraan ba ne ër er! te iñaani na firi ndax yow dañ koy dañ te boo xamee xamaleen yaakaar naa xam-xam loolu. mooy tax xam-xam bi am njëriñ loolu la wax mu ne lii loo ci xam sëriñ. Mhm. dafa doon toog moom ni ay tur yëpp ko doon def. tur bi xam nga ni mu ko doon def. Mhm. mu kii euh, maanaam euh, nit ku génn àdduna. Mhm. yére bu muy mujjee comme seen cosaan yooyu ci lañ koy daje. ok xam nga néew du déedéet. waaye dafa am koo xam ne dangay jël ca euh, jël naaw naaw rek la ñuy muñ muñul tuuti. naaw naaw. jaasi paaka lépp ak pistolet nga teg ko mhm. jël mooso bi maanaam sel bi teg ko mhm. ak sa cosaan mhm. toogu sa laa def ndax naa ci ndax teg toog naa ñu teg laax boobu noonu dugal ci bagaas yëpp ñu teg toog juróom-ñaari nit tiim bool ba kenn ku ne di barkeelu góor gi yor paakaam ci ginnaaw di dox day dox ba yàgg ne daal di ne pucc kenn di xool ndax la mu defar baax na te seen dëkk boobu laa ko gisee woon loolu léegi nag eh, macha allah bu fekkee dem na ba loolu taxaw ba yow nga ñeme yow ko góor mm-hmm. nga xam ne yàlla soxlatul mm-hmm. te tul dafa baax sax ci jamono yi surtout réew mi daa jaxasoo mm-hmm. maanaam jam-jam yi réyaate yëpp euh, maanaam gaaw na loolu mosoo boo fekkee da nga bëgg a téye ñaar day soppeeku jaan ñu suñu tourné yi jaan lay soppeeku mooy jaan yi loolu moom lay soppeeku ba bi nga bi ngay koy takk sa ndigg jaan lay doon waaye boo ko takkee mu dellu mos man mi dama koy def wax dëgg ma ko jàngal am na loo xamante ne buñ la ko joxee dañ am na loo xam ne bu ñu tëjoon kaso ngir dund. Mhm. ñu fexe ba loolu coppati ba ñu togg ko ba boromam jot mhm. sangoo ci suuf. Mhm. parce que Seexul ñu ko téye téye dossier. ne ngir dund. ñooy jékki-jékki ne diw mi dafa war a dund. force mu génn. ñun ñoo koy def. loolu beneen kaa moo tax ma la bëgg <laughs> xale laa te am na ñoo fekk ginnaaw. Mhm. moo tax yéen yëpp. ndeysaan te suñu secret kenn ko wax ci biir. Mhm, déedéet waaye taal mhm. ku ñu fekk fii. ci santal bi ñu ne. ci kattanu yàlla ci ginnaaw président yóbbu. santal sant bi. ñun fu ñu nekk nii jàpp jàmm jàmm rek la ñuy kii waaye ay bi yëpp dex na. macha allah am na yeneen bagage yoo xam ne génnewuñ ko. ñu ñu sangatee ñun fii la ñuy sangatee rek la sangatee. ndax nit ki foo nga moom nga mën a salwaatee doomu aadama. ak ndaali njaq. njaq boo xam ne nga dindi kii bi ba mu yaatu. Mhm. nga def fa say bagaas. Mhm. def ko juróom-ñaari ndax. mbaa def ko treize ndax. Mhm. treize ndax xam nga de ñi xam ne yu wut pour nga bitim réew. mbaa nga nekk ci njaay. day jékki-jékki njaay mi xaw a jaxasoo. gars yi am lu ñu fa defal. de boo doon gis ñaari kilaan dootoo gis. sëy bu nekkul. góor goo xam ne nga nekk ci place war a yëkkatiwu hmm. maa nga war a dem rek gaa yi ne hmm. nga doon borom bay ku la gis yéen la jàmm mën a doog du fa hmm. boo ñëwee ci saltige yi dañoo dañuy def maanaam agent secret loolu kenn xam du ko xam man ñun ak yàlla ak yàlla rek ñoo koy toogee fii kër gi sutura bari fi suñu bagage nag dëkk ba la jógee horaire bi indi na dégg yu bari mu ngi fi Sine Saalum Kër Madiabel Kër Kër Pathé Wakuna Touba Mandela Touba Kourante fépp la ñuy jël nga xam ne bu la. foofu la ñuy jël sëñ Touba Mbacke seen ndeysaan fa la ñuy jëlee suñu bagage. macha hmm. am na am na tool yoo xam ne garab yu fa sax boo mosul am doom yow miy góor mbaa yow miy jigéen boo laalee ko ba dootoo am doom bi. allahu akbar am na loo xamante ne yow miy jigéen mosoo sëy nga laal garab ba dootoo sëy ba abadan boo ñëwee foofu dañ lay naan bii lii lay faj bii lii ak man foofu laay la ñuy jëlee suy kat dama ne aram teew laay dama nëmbatu nag waaye ku ma fekk hmm. ñu sangale ba nga set suura jogal la ay suur nga suur kenn du la jox garab nga yóbbu sa kër nga xam hmm. nga nit ku ne dafa am àndandoo bu soxor hmm. mu ne laa jox garab bi boo ne nga dem nga dem ndeysaan sarawaan bi danga sa yaram. lu leer day naan ah man xaaral ah bu ko defee da ngay naan kii de dama ko jox sama xaalis ma defal waaye gisuma. te dafay ko nii. fekk na fekk na sa bagage. rawaan na ko yàq waaye ñun boo ñëwee bi fii. Mhm. dina la wax lu ñu seetee. Mhm. bu ñu paree dina la wax lu ñuy sangatee. Mhm. ci kaw boo ko bëggee. ndax fa sawul fekk. dëgg ndax jaay yu suñu bagage. wante wu ñu. dëgg la ndax xam nañu ban affaire la. waaye bokk na ci fi ne lu ma jaaxal soxna Mariama Thiaw dama gis fi mu ne yërmande ji nga boole ci ci ci liggéey bi ndax nit bu ñëwee bu waxee soxlaam automatiquement yërmande ji damay gis nga jàkkaarloog nit di wax ak moom ba yàgg jékki-jékki yow say bët di taa yërmande ji nga ci def oyofal ko tey jii damay gis sëriñ yu bari ay 10 000 ay 20 000 ay 30 000 la ñuy seetee et damay gis Mariama boo ñëwee fi mu toll loo am boo ñëwee mu taxawu la jàppale ci yërmande jooju tam lan moo ko waral tam. waaw loolu nga bëgguloon a gis ko xiif bëgguloon a gis ko mar sama yaay mu ci dëgg yi naan ko ay fenn xam nga dama doon wax mm-hmm. mu ne bu la kenn denk alalam mm. bàyyi ñëpp denk la alalam nga am sa soxla fajee ko sa soxla xaw ma ban la lay fëgg cey mag mi li ma la denkoon nga naan daa daa daa mm-hmm. bor paase na de te loo am bu dee fukki del mm-hmm. toj ko juróom bi nga génnee ko ni salafa ci ginnaaw jox ko nit danga nga yeewu di buggal jënd sama yaay bëgguloon ko xiif ndaw bu taal ci naaj. Mhm. moom la doon gënoon bañ. bu defoon gis naaj yi mën a jóg rek a yomb. def leen ko xale yi jon jàng école ñëpp privé. àll mhm. ko ñëpp suñu suñu kër lañ doon fooy defar noonu. Mhm. yaa ngi bon nag nit yi doo juddoo ci yërmande juddoo ci dër bu baax ba pare nga mu ëpp. déedéet mënta na def. naa la fii ku fi ñëw. Mhm. Mhm. Mhm. a ngi fi nag. Sine balaa ñu lay kii dañ lay seetal ba pare. man su ma neexee boo ma woowee distance. sax dama ma laal gitaar ma laal gitaar xam naa xam naa ci dara <laughs> lay xam naa ci dara ma laal dara xaaju bi sax dañ may woo waa bitim réew mbaa fii ma seetal la nga ne ma xanaa te ma ne dama tëdd kay yaa ma woo. Mhm. comme que soxlaa la ñëw kay. te man la yàlla yëbal. Mhm. pour maanaam ma jàppale ci li ma xam. il faut ma yeewu. walaay walaay ndeysaan. mu ne ma yow yaa ngi may seetal te yoroo ba te yoroo te yow li ma wax moom ci loolu laay jëm. ah man ko may yàlla la. walaay mayu yàlla la. léegi nag euh, comme léegi ngeen di si nii. Mhm. na Sénégal ak ñu wër ngeen kat. ñu fekkee saltige fii. incha allah jóge nañ si Saloum. saltige la gars yi doon wër te saltige baa ngi fii làqatu jàpp jàppuram moo tax ñu ñëw wër si ko ngir ne ko fi mu toll mais soxna Mariama bokk na ci tamit li nga xam ne dafa dafa dafa lëmb réew mi. mooy fi mu ne lu jóg ñu ne rab lu jóg ñu ne rab ku yàqule ñu ne rab ku lu ku faatu sax ñu ne rab a ko rey. <laughs> léegi ma bëggoon xam soxna soxna Arame Thiaw noo def ak rab yow yow noo def ak rab ndax cangat yi ma gis yu nii moom defe naa ni du cangatu raxas ak ubbeekoog yi kese di am na cangat yi am na yu mu àndal yoo xam ne faaw nga may ñu ci tamit ñu doon a jeexal suñu jotaay bi tey waaw ba tey jawri loo ma laaj lu ci xam rek dinaa ci wax. te yàlla bu ma wax lu ma xamul. Mhm. parce que Sénégal àdduna loolu képp ki loo ne. Mhm. xalaatal ñu lay déglu dëgg nit bëgg na la euh, soppe la. Mhm. léegi li ngay waxee a diwli mu waxee. woon a waxee nii. parce que nit ku ñuul. Euh, ko fekk. dëgg la boo basé wu mën a war faa daal. wallaay wax nga dëgg. waaye rab. Euh, dëgg la sëñ daala rawaan dafa am. rawaan mooy. rawaani famille yi léegi léegi mhm. mooy tuur yooyu ñuy tuur ñun lébu yi mhm. nga xam ne dañuy dem ci géej bi yi wut soo piir mhm. def ko suukar ba mu sax nga def sa kere dem ñaan pour am jàmm nga tuur mooy njàq mooy rawaan far rab dafa am rab dafa am ñaari yoon am na rab boo xam ne da yàq sa àdduna yow mii ko góor am jabar dara du la neex liggéey boo mun a dem ba dugg fa am maanaam ndam mu yàqal la. mu yàq ko koo neex. Mhm. suba boo sàgganee bu ngeen dajee suba mun na la. ca <laughs> rawaan rawaan mhm. na mhm. ko yàq déedéet cat day ba bi. ba ci biir bàmmeel yàlla nu yàlla musal ci. ak moom moom it musal ci mboolem bi. léeg-léeg nga ngay tooñ tax rab bi te nag cat judduwaay la. cat nga xam ne da la teg ba te maanaam boo bu yaakaaroo dina si nga yaakaar sama soppee. te bu sañoon doo am doo bouché métal. réew mi dafay réew mi dafa la jëm. Mm-hmm. ñun ñuy seetkat yi nag laay wax ni mm-hmm. nañu seet lu ñu mun. Mm-hmm. ak lu ñu xam. di jàppale gars yi. yaakaar di ko foofu. wallaay ndeysaan ndax boo annoncé ne man bu ñu taxoon sama yaakaar. neexuma. bul na ko mukk jël loo xam ne da lay wóor a li ngay wax. nit ki boo liggéey xaalisam xamoon nu mu ko liggéey. la naan ci lekk lu lépp. surtout. waaye day na waar daal. tudduma kenn waxuma kenn. waxtaan rek. day waxtaan waaw waaye nañu seet ngir yàlla ak yoon te dañuy jàppale gars yi. ñun ñi ñun ñun saltige yi de. Mhm. fii ku fi ñëw de ñun la jàppale te yàlla tax. ndeysaan dinañ la seetal. Mhm. defar la ay sangat te sangat bu ñuy sangatee ñu ko dem fukki réew ak ñaar doo ko gis. parce que ñun dañuy dugal suñu bagage dindi la ne ci yow ca tojal la lépp ak affaire rab. Mhm. donc sangat boo ko xasee di sang lu mu sa a nekk ci yow te fu la liggéey bi di ko fekk. Ah, doo ko jël nag waa li bay rek mu lay ubbi. pour xaalis pour yow bu ma gisee taal la mu neex ba mu a waxtaan jàmm ak salaam. doog la ko sànni bu pare ñu defaral da mhm. waaye ñu fiy jaar yëpp gii mhm. ñu ngi woote naan alhamdulilah rabbil alamin am fu ma demoon waaye seen santar boobu ku ku ma génn ba seen bagage yooyu laal ko ba génn mhm. da ngay nelaw ba ànd léegi la ma boo xam ne dama doon woo léegi mu a ma yéen ñu ngeen di yàlla la ngeen di ndeysaan mu ne maa ngi nii di doon di dënd te daal loolu gëj na maa dal oh. soo noonu ma ne dañuy defar pour jàppale nit parce que nit ki bu la yow de tax mhm. am na li nga mun yow mii am na loolu yàlla may may bu aram mhm. kii nii kii nii kii nii bu mhm. ne man borom xam-xam laa rek am xam amu fi defal nit ki yàlla ne xaaral ma rus nit ki jàppale ko ba mu am dal na gaa yi bàyyi di ponkal la kay lu si ponkal ah, <laughs> lay mooy ponkal lay mooy ponkal mooy tey di defaral taala mu ne ah war naa rus aram di jàppale buy ma koy defal yaa ngi dégg. Mhm. bu ko defee da nga gis yii diw moom foog waaye yow doo dem ci diw bu ma jàppale ba léegi de man daan fàtte nga yàlla de. wallaay ndeysaan te bu may jox dafa ne yàlla ak man. bon hmm. ana ponkal bi. yàlla. bon nañ jël lépp. wallaay teg loxo yàlla ci barke Seydina Muhammad. alayhi salaatu wa salaam te ñu jël suñu xol yi raxas ko. Hmm. am yéene. Hmm. te ñu bàyyi liggéey bi. am na ñoo xam ne gëmuñu yàlla gëmuñu bàmmeel. boo ñëwee tey jox leen xaalis. jëlal ma bakkan sax leen. xaalis la ñuy xaalis bu muy baal. nii la def comme nii la parce que bàyyi ko bu baax. c'est nañu seet yàlla jàppale gars yi. macha allah te lu ñu xam. bu mhm. ñu woote nit ki ci lu ñu xamul. Mhm. di yokk ay problème am nit ñëw na seet ci yow. Mhm. gisoo dara xam nga lan nga def dañ la liggéey te fekk liggéey lu ci boromam cata ko topp ak rawal bu mu àndal. kooku na xoolal bu dajee kii ne kii moom a liggéey. bu dajee kii ne kii. ah parce que yàq nga xelam fu mu jógante rek comme dajal daal jàpp ne fi ne moo ko def. musiba seet seet seetati na dañuy yàq xel doomu aadama yi ba kenn mënatul a jubóog sa morom xam nga seetkat yi dañ fay bëri waaye giskat yi ñoo néew. ñii seet dañoo bëri lool waaye ñii gis dañ leen di wàññi fi mu toll nii. tey bu jaaxal jeexee ba jéggi jeex <laughs> ah, xaaral naa bokk la doon cosaanu siin Saalum bokk ci waat fi mu ne gis nga reen yi yéen ak bii nii ak bii nii fu ñu nekk. Mhm. jamono ko amee. boo xalaat ñu def fi ñu nekk nii. koñ léegi amaguñu lu bi lu lu limon bi moom seen njëriñ lu mu doon. di ko dugal sa poos. Mhm. yaa ngi boo doxee ba mu yàgg nga dagg ci mhm. loolu agent secret da nga koy jam di wërale ko juróom-ñaari puso boo ko jamee fii wërale ko def ko ci suuf def ci xorom. bu la neexee nga def ko ci biir def ko ba mu fees maa leen ko may nag loolu moom. gratuite. di sangu rek ba juróom-ñaari fan. bu mhm. la laal macha allah Ousseynou lu muy def. lu ma fekk loolu day jóg da koy mu jóg jeex na kat. <laughs> xorom bu weexee doo lekk de. wallaay doo lekk hmm. te li ngom bi mooy forox na tool. kii la tal ci kii nga ñu ngi koy gis mu teg ko di ko sango bi mu wàccee ci oto bi laata moo dugg ca sànni. Seexul Xadim laa lay euh, boo xam ne daa am bopp te mënoon lu mu def lu mu def génn àdduna ak koo xam ne ci biir dëkk génn àdduna te yàlla am lu mu ko mayoon ba dëkk bi yëpp di naan dem leen ci biir hmm. garab bi sax ci bopp bi ñu ko wër bi juróom-ñaar mooy bii dina ko sagal yi te bii ñi xëccoo yi xam nañ ko ah jaar nañ ci santal kañ laa ciy sangu si. <laughs> Eh, boo bëggee yow moom sama càmm <laughs> macha allah jërëjëf soxna Mariama Thiaw Laye la ñuy waxtaanal yéen a ko dégg noonu li muy wax itam wax dëgg yàlla mu doon loo xam ne lu mu maîtriser la lu mu xam la lu mu donn waaye itam mu doon tam cosaan ba pare bokk itam mu gëstu waaye li ma ci gën a neex mooy yërmande jëm ci jëm ci jëm ci boole macha allah rabbi waaye soxna Mariama waxtu wi mi ngi xëccu jëm ci jeex tey bu ma la laajee ne la tey gannaaw centre bi nga xamante ni tey ji ubbu ngeen ko toog fii ci Grand Yoff di fi jàppale jaamu yàlla yi lan mooy doon tey ji message bi nga xamante ni buñ la ko laajee nga yónnee ko tey ji askanu Sénégal ndax nag àdduna a ngi lay seetaan ndax à TikTok bi wax dëgg yàlla ku dugg ci ci TikTok bi rek boo defee Mariama Thiaw di ko gis mi ngi koy lëmbe moom day xëy suba ba jant bi so toog di ko lëmbe moom tabarkàlla macha allah yàlla na yàlla sàmm ko waaye naka noonu itam ci mbooleem réseaux sociaux yi boo duggee ci Facebook bi ma nga ci ci Instagram bi Twitter bi yëpp tam mi ngi fa te ñu ne dinañ indi suñu wàll ndax lii ñuy def ak moom ni bu ñu paree itam waxtu julli bi waxtu suñu borom bi mhm. mi ngi noonu di ñëw te xam naa ne fi mu ne mooy bëgg a yàq émission bi tax ba nga déggee Allaahu akbar ji ba léegi fi mu ne bëggatoo ci yëf yi dara message bi kaddu yu mujj yi tey jii lan lay doon ci jotaay bi ñu yëkkatee ko jotaay bi macha allah waaw bu ko defee nag macha allah di leen sant rek mhm. ndaxte li ngeen def mhm. euh, nit ki nga xam ne da fekk di bërëb di la gën a yëkkati pour ñi gën laa ràññi macha allah kooku mënoo Euh, macha allah pour ñuy ràññee gën a ràññee. Mhm. ndax comme ràññee nañu bu yàgg. Mhm. gën maa ràññee. ak dimbali jaam yàlla yi ak dimbali te fii sëñ Talla ku fi ñëw. dinañ mhm. la jàppale ci lu ñu xam ak lu ñu mën. macha ñu lay sagat dañ lay seetale pare. ñu mën a jaar sa rawaan. waaw ah, ba mun laa defal li tax. moom hôpital sax boo feebaree boo demee ñu defal la consultation door a xam lu ñu lay fajee. incha loolu mënul la ñàkk xam ne nag dañ lay naa rek da nga ñëw rek lu dóor mu daal jaxase garab yi li metti bopp <laughs> ndeysaan ci yàlla. yaa ngi dégg dóorkat yaa ngi toj réew mi alors <laughs> non yal nañ ci yàlla dimbale ci ñoom. wallaay ma duri kenn mhm. waaye ku waroo sa bopp rek jàkkaaroo xaram. ah waaw bi moo tax ngay wax jàkkaarloo Mariama wax lii ma neexoon sama bàmmeel bii. Hmm. am na lu bari loo xam ne maanaam dama ko dawee yaram ndax fii. sama benn xarit ma doon àndal ci làmb bi mos nañu toog ba ne ma xaram waa ma ne yow nit bu sukuraat naka la ma ne ko laaj na la kooku ndir sànn feebar na mosuma yëg dafa feebar. Oh. kuy taaru ci àddina kooku la gën a taaru xajuloon fii. ginnaaw bi bu doon yow miy jigéen sax dañ koy dañ koy nag. mu mel ni comme. ko ci yàlla. nitu mm-hmm. dama ne yum ci néeg bi rek mu ree cawa bi ko rek la ma doon woo. ndeysaan. ne gars yi gañ nañ ma. oh. Euh, macha allah def rafet na taal. macha allah. yàlla suñu borom moo tànn rek. Mhm. te xëy na toujours nañu xalaat ne rek ku nekk la ngay dem. na yéex. Mhm. mu ànd ak mhm. gudd fan nag. amiin yaa rabbal aalamiin toog di leen ñaanal. allah. yéen it li ngeen di liggéey nii. yàlla na yàlla suñu borom gën a la gën a la yëkkati lafa leen cat. amiin yaa rabbal aalamiin ndax jamono bii ne. nit yi ko dem. déedéet ci looy jublu di ko kii rek ndeysaan am na ñoo am ne gënalu leen te macha allah lépp rafet na. ñuy annoncé ne maanaam ku ñu soxla. Mhm. ñu ngi ci ginnaaw police Grand Yoff bi bi nga xam ne bu ba tey. Mhm. ñu ngi jàppale doomi aadama yi macha allah ak maanaam li feebar ni mhm. ak lu soxla toll ñu ngi leen di jàppale di yàlla. macha allah ñun nag am nañu sutura. tey suñu mbir sutura la te boo ñëwee fii dinañ la dalal doo fi ram doo fi sonn. te macha allah bu dee góor. ñeenti yoon nañ ko sagal bu dee jigéen. ñetti yoon nag. Mhm. ba suñu bagage nag du jóge fii waaye toujours horaire bi. Mhm. Euh, bu am balaa muy am ay fan. Mhm. day indi bagage yi parce que bagage yi dañ koy fay am ñu koy defee weer ko. warul manqué quoi surtout nawet bi ñun. a baaxee. nawet. dañuy leemu si ñu gis ne am na tilim tilim loo ko nar a baare. ñu woote kii na ay sarax. gën ay débat de jaamale ñooy mhm. bu ñu ñëwee coow bu sëy nag ci kattan yàlla baaxayam kon nag na gars yi ñëw si ñu ñuy fekk si mhm. sëyu tas yi mhm. baa nga sa jëkkër am ay lëndëm la ñu boo feññee rek ñu seet fu ñu la a jaaral bi jàmm am ndax ñun pour nga am jàmm maanaam euh, famille bi jubóowul ak li nga xam ne sa saa nga yëg sa yaram am jékki-jékki am yaram ba jékki-jékki di rës mbaa léeg sa fit bi di def tafi mbaa léeg-léeg nga mel ni ku feebar doo nelaw guddi mbaa boo lekkee du rës mbaa ku ñu jox lekk bu macha allah lépp ba ñu fekk seen. Mhm. dina la seetale bari. Mhm. doo ko seet fi nga mën a jaar. Mhm. ndax nga am jàmm. incha allah te buñ koy téye ba tey. ñi fi ñëw daal ñu di sangu. di defaroo parce que nee na mosuñoo gis nii. ndeysaan dem ci sëriñ mu jox laa kii waaye fii nga ñëw sangoo defoo fi yëpp. doog a te boo demee guddi gi nelaw. loolu yëpp yàllaa ko nangu. may sant sama xale yi ma nekkal nag. ndeysaan ay borom baax la. wallaahi nga xam ne ndeysaan boobu ba a bàyyi. boo ko gisee. Mhm. na la gën a sa doom. ndax nit jur na doom jëruñu la doomu mhm. jàmbur di la jëriñ. di la jëriñ dëgg la de. kee toog ne. Mhm. mooy Ibrahima Alioune Laye. ndeysaan euh, moom it mu nekk fii. macha allah di émoor buy naaj da koy dindi. maanaam li nga xam ne mooy soccet. wala ndoxum si fii. ak diggante boo mënta doon rek. baa koy jaay kër. baa ngay jaay kër sa njaay mënul jaay. baa léeg-léeg jël sa bopp nga jékki-jékki mel ni maanaam doo sawar daal. man daal mënuma wax waaye ku ñëw fekk si ñun sant kii fii ci ginnaaw police gannaaw bi ci santal bi mhm. dinañ la tegal ba mu leer nañ mhm. man nag su ma yeggee fii 9 mhm. damay def direct 9h ba 14h ma julli ñu jël pause ba 3h ci laay continuer ba 5h ma julliwaat demaat ba 19 ma julli sama waxtu yëpp ba julli gee damay démarrer waat ci guddi bi heure bu ma bëggee nelaw rek ma kii waaye terewul gars yi bu ñu wootee rek. Mhm. dama leen di leeral ba may nelaw. macha allah damay nelaw sax ñu woo ma seetal leen. ndeysaan man su may seeti laalu ma petaaw laalu ma xam. <laughs> ba mu wutawoo rek. macha allah li ma xam. Mhm. ak li ma mun rek mhm. ñu dugg ci biir doom ba mun a am afiya ma mun a am du ma la tiital. wallaay parce que nit ki boo koy seetal bu ko tiital. surtout. waaye li jëm li li weex nga ne ko dafa ñëw. borom hmm. nu muy def. tiit jaxasoo. fu mu dekk du fa amati jàmm. fu mu gis noonu loola. Hmm. ndax luñ ko wax. dëmm ba mbaa nit ki la liggéey mbaa kee di laa bañ te fekk nag ki nga koy naan di laa bañ ko kooku na bëgg. Hmm. nañ ñun seetkat yi nañu seet yàlla suñu. incha allah baa mel na de. laa xakku ba. la nee ños si biir. léegi nga xam boo xamee ñu bos. kan ngay waxal du yaay du baay du xarit. papa Thione Seck yal na ko yàlla xaar àjjana ak ñu ko fekkal ñu ko fekk mu ne amul pardon de pardon fii la ségrégation fii la wallaay ndeysaan bu terminal fenn na gaa yi xalaat la macha allah yal na yàlla suñu borom defal jàmm allahumma amiin yaa rabbal aalamiin doon loo xamante ne seen biir laay la yàlla yëkkati leen dafa leen kat amiin yaa rabbal aalamiin sama doom bi taxaw ndeysaan moom it ndeysaan taxawaay bi métti na macha allah waaye ko supporté ndeysaan ah waaye sama sama sama jigéen a ngi taxaw ci wetam kay moom bosam warta warta warta metti fi mu toll kii moom secrétaire fii na non man man man sax. non moom moom moom moom sax dama dama dul wax dama dul wax. Mhm. waaye. <laughs> macha allah ñoo yéen koy dégg noonu soxna soxna Mariama Thiaw laay Aram Thiaw moom la seet si woon tey doon waxtaan ak moom yéen a ko dégg ndeysaan nit ku baax nit ku oyof nit ku laab borom xol bu sell mooy kër gi moom boo fi duggee di nga xam ne ay ay ay wàlli woo fi daje ndax Mariama ku fi baax ku ne Mariama la moom xaritu yàlla waaye soxna Xadijatu mi nga xamante ni moom mu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ah. kon daal kër gi defe naa li fi daje na gaa yi daw ñëw fii nga xamante ni mooy eh, fi mu ne centre bi nga xamante ne centre centre saltige bikool bi te ñëw xam ni fii daal mbir a ngi fi te jàpp naa ne ci kàttanu suñu borom ku fi ñëw incha allahu rabbi loo fi indi ci wàllum jàngoro wala wàllum tawat wala wàllum soxla njott naa ne bu soobee yàlla suñu borom incha allahu rabbi di nga ci am ndam sax nga yónnee ñu seetal la defar la ay sarax ndax nit koo gis sarax la mhm. waaye ku ñu soxla rek boo taxawee buntu police Grand Yoff bi mhm. boo ci wootee dañ lay jël si comme ni ñuy jël yi fii guddi ma jël see <laughs> kon nag mbokk yi ñoo ko bokk déggandoo seen jotaayu xam-xam bi nga xamante ni mooy faj sa jàngoro la woon tey ñu ñëw seet si woon saltige Bikol soxna Mariama Thiaw laay waxtaan wax dëgg doon waxtaan ak moom ci wàllu xam-xam ci wàllu cosaan waaye ci wàllu dono ak mbooleem ñi nga xamante ni ñoo nekk ci biir daara ji fi ne ci biir centre bi fi ne di jàppale mbokk yi rek wax dëgg yàlla sant ñëpp gërëm ñëpp ci daraja yonent yàlla Muhammad mébét yi nga xamante ne am ngeen ko ak yéene ji nga xam ne am ngeen ko yéene ko askan wi itam sama borom dolli cee def lu kawe seenu jot ci daraje yonent a baax yi nga xamante ne ñoo ñuy teewlu saa su ne ba lu ñu dugal lu ne ñu koy profité di ko seetaan ndax xam ni li ñuy def itam wax dëgg yàlla du promotion du dara waaye dimbali leen ci biir jaam bi maanaam li naan jaamu yàlla ci biir jaamam ñi gis ni soxna Mariama Thiaw am na lu ko suñu borom jagleel ñu ñëw seet si ko jël ko waxtaan ceeg moom ngir jagle laat leen ko ñoom kenn ku nekk boo ko seetaanee lii sa soxla lii boo ko ci gisee incha allahu rabbi contactel waa centre bi nga xam ne mooy waa centre saltige euh, Bicol su ko defee incha allahu rabbi sama def tawfeex ca la nga xam ne mooy sama bët sant ñëpp gërëm ñëpp jox dig daje incha allahu rabbi taala ci suñu beneen jotaayu xam-xam ak seen émission bi nga xamante ne mooy faj sa jàngoro jërë ngeen jëf. ci barkeb say xi fàddilu mi buur yàlla dolli noo ay buru yàlla dolli noo ay maqaam yàlla bismil ilaay ci barkeb say ci faddilu mi buru yàlla dolli noo ay maqaam yàlla Bienvenue